ñu eh, ngi nuyu ñëpp eh, comme ni nga ko waxee rek noonu ñu ngi sant yàlla ndax bés bu ñu doon néeg la comme eh, yàlla def na am nañu ndigalu président bu jóge ci moom te yàlla dem parti yi nekk fii yëpp ñoo ngi ànd ak ñoom Moustapha Diak mu ngi nii parti AFP ñoo ngi ànd ak parti socialiste ñoo ngi ànd ak parti PLD ñoo ngi ànd ak réew mi ñoom ñëpp ñu ngi taxaw nii ànd ak sàmmkat yi ànd ak béykat yi ànd ak ñitti xeeti fi nekk mooy nu mouvement jigéen yu bëri nu ko mel na ne mouvement Cheikh Ndiaye ak ay jigéen yu bëri ay mouvement dañu am mouvement mouvement mouvement gën gëm sa bopp <laughs> euh, ànd ak xeeti fi nekk yëpp suñu mbokk pël yi suñu mbokk naar yi suñu mbokk wolof yi sek ay kam na sax ay quelque séeréer <laughs> <laughs> kontaan nañu lool si daje bi fii tey ci Dabakh la sous-préfecture sous nañu déposé def naa déposé naa sama candidature ñoom ñu gunge waaw mais ñun daal ñoom ñu ngi wax ñun ñu ngi liggéey ñi xam ne dañu bëgg nekk ay candidat ñu xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk ñu ànd ak yar ànd ak teggin comme ni ko président di defee xam nga président Macky mosu leen dégg kenn ku ko tudd bi mu tontu ci moom moom la ñuy roy moo tax ñun kenn duñu tudd bi ñu tontu ci ndax ñun xam nañ yàq dëru nit ci loolu kenn du ci am avancement yàq dëru nit kenn du ci am avancement dañ bëgg wax rek ñu xam ni nit surtout sax nga koy sosal comme ngeen koy déggee bés bu nekk man bu ma amee ci ñoom lu rafet danaa ko wax bu mag amul danaa liggéey sama liggéey mais amu jot pour wax ndax li ma topp yaakaar ci man nangu ànd ak man ñooñu duñu ànd ak ki nga xam ne day wax amuñ jot boobu ñoom maa ngi gërëm maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant ko le meilleur gagne